الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey jeudi 18 mars 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 211 ci sunu jotaay bi passé jeexaloon nañ gis naka la frère di don't ñu annoncé woon ne dinañ jàll kon léegi ci sër yi ñu fas yéene tey kon tàmbali ak sa sër boo bokkal ndey ak baay naka la sër boo bokkal ndey ak baay sër germaine naka lay naka lay donnoo ci wàllu dàq nañ xam ne sër boo bokkal ndey ak baay sa doom bu góor ak sa sët bu góor bu soqee ko ci sa doom bu góor ak sa papa dañ koy dàq kon pour que sa sër boo bokkal ndey baay mun a yegg si ci sa ndono day fekk ne sa doom bu góor teewul sa sët bu góor bu soqee ko ci sa doom bu góor teewul sa papa itamit teewul naka lay doo su nekkee ne yegsi na sa sër bi nga bokkal ndey ak baay su nekkee ñu koy dàq kenn teewu ci ba tax mu mun a yegsi ci ndono li su boobaa naka lay naka lay séddoo su boobaa naka day jëlee wàllam su nekkee ne dafa wéet su nekkee ne dafa wéet nekkul ak kenn koo xam ne rek mun naa donn su boobaa dafay jël genn wàllu àllal ji kon gis nga mbokk yi sa sër boo bokkal ndey ak baay mun na jël sa genn wàllu alal su nekkee ne amul kenn koo xam ne euh, mun na mun na mun na mun naa donn su nekkee dañ bari nag su nekkee da nga bàyyi ay sœur yoo bokkal ndey ak yu bari su boobaa ñoom dañuy séddoo les deux tiers su boobaa suñu xaajee alal ji ñetti xaaj ñoom dañuy jël ñaar ya dañuy jël ñaar ya su ko defee ñu séddoo ko séddoo les deux tiers ñaari ñaari xaaj yi ci ñett ñu séddoo ko Euh, évidemment ñoom ku ci nekk la ngay am moom la sa morom di am kon ñu gis ne euh, sa sœur boo bokkal ndey ak baay ak sa doom bu jigéen daanaka ñoo bokk àtte ci wàllu séddoo bokk àtte ci wàllu séddoo suñu wéetee jël genn wàllu alal ji su nekkee ne dañoo bare ñaar jëm kaw dañuy jël e, ñaari xaaj yi ci ñett les deux tiers léegi nag mbokk yi am na benn cas particulier am na benn cas particulier boo xam ne bu am solo bu jara xam bu jara e, jàpp mooy ne sa sœur boo bokkal ndey ak baay su nekkee ne dafa toog ak say doom yu jigéen benn ñaar ba fuñ toll rek benn wala ay doom yu jigéen su boobaat doom yu jigéen yi dañuy jël seen wàll la des ci alal ji sa sër boobu bokkal ndey ak baay jël ko kon gis nga mbokk yi sa sër boo bokkal ndey ak baay su toogee ak say doom yu jigéen say doom yu jigéen yi dañuy jël seen part si deux tiers la la des benn benn tiers ba su nekkee ñoom rekk kese la benn tiers ba ca des ñu daldi ko mu daldi ko jël kon si nga fii mbokk yi cas particulier la boo xam ne sa sœur boo bokkal ndey ak baay su ci nekkee dafay mel ni asaba avantage bi asaba bi di am di jël li des ci alal ji moom dafay am avantage boobu donc kii mën nañu wax ne mooy exception bi nga xam ne jigéen mun na ci jël li des ci alal jigéen mën na jël li des ci alal cas particulier bii la mooy sœur ba bokkal ndey ak baay bu bu toog ak say doom yu jigéen kon mbokk yi mu ngi noonu loolu mu ngi noonu loolu lañ indi woon tey loolu lañ jukki woon tey ci naka la sa sœur germaine maanaam sœur ba bokkal ndey ak baay sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen ba bokkal ndey ak baay di di donno incha allah suñ fi dajee waatee ñu jàll ci naka la sœur boo bokkal baay dong sa doomu baay bu jigéen naka lay donno yalañ ci jàll yóbboog jàmm subhanaka allahuma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم